ngi xaarandi ba léegi Cheikh Ibrahima Mamoun Niass Baye Mamoun xalifa baa ngi toog imam baa ngi toog Cheikh Mouhamadoul Makki mu ngi toog Cheikh Mouhamadoul Amine mu ngi toog imam Cheikh Mohamed mu ngi toog Sidi Arabi mu maam Rajo Mourzéne mu ngi noon toog fi ñu xaar rek kenn rek la mooy Baye Mamoun Niass waaw kilifa gi joxe na ndigal nee na ñu tàmbali yàlla bi tëdd ci seen kanam jullit xaqal la mu ngi lay seedeel ne jullit xaqal la cheikh Mouhamadul Mansour Mouhamadul Mamoun Ibrahima Niass cheikh Mouhamadul Mansour Mouhamadul Mamoun Ibrahima Niass Tijaan xaqal la mu ngi lay seedeel ne Tijaan xaqal la cheikh Mouhamadul Mansour taalibe bàyyi la ku bëgg Mawlana cheikh Ibrahima Niass la cheikh Mouhamadul Mansour taalibe bàyyi la ku bëgg Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu la. baayam Cheikh Mouhamadul Mamoun moo ko moo ko joxoon wirdu Tijaan. baayam Cheikh Mouhamadul Mamoun moo ko jox lijaasa. baayam Cheikh Mouhamadul Mamoun sëriñam moo moo ko jox moo ko jox lijaasa litlaaq. ci tariqa Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. ci tariqa Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. ca Faas. ca Faas. ci kanamu Cheikh Tidiane. ci kanamu Cheikh Tidiane. sëñ Mamoun gëstu na ko ne ko. sëñ Mamoun. gëstu na Cheikh Mansour mii ne ko. ne ko maa ngi lay seedal fii ci kanam Cheikh Tidiane ne gërëm naa Baye Mamoun jox naa ko lijaasa yi ma Baye joxoon yëpp. ne ko maa ngi lay seedal fii ci kanam Cheikh Tidiane ne gërëm naa Baye Mamoun te jox naa ko lijaasa yi ma bàyyi joxoon bàyyi joxoon yëpp. booba. booba. maa ngi woon ci dogalab yàlla bi amoon ci Arabie Saoudite. na mu ngi woon ci dogalab yàlla bi amoon fële ca Arabie Saoudite. amuñ dara ci sama xibaar keroog la ko wax loolu. amuñ dara ci ay xibaaram keroog la ko wax loolu. tegal ko ci ne ko yow tamit jox naa la ndigal. tegal ko ci nag ne ko yow itam jox naa la ndigal. lijaasa boobu di lijaasal maasiya Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé wan na ma boo xam ne imam Cheikh mi moo ko jox jëlee ko sëñ lijaasa boobu di lijaasa naasiya Cheikh Ahmed Tidiane mi wan na ko ci boo xam ne sëñ Mansour moo ma ko wan sëñ Mansour wan na ko ci boo xam ne bu sëñ Aliou joxoon imam Cheikh moom joxoon na ko ko bu sëñ Aliou joxoon imam Cheikh moom it joxoon na ko ko te bàyyi da ko joxaloon boppam sëñ Maamun te bàyyi daf ko joxaloon boppam sëñ Maamun li tax ma wax lii rek mooy bés bi bésu dëgg la ne li tax lii mooy tegtale ne bés bii bési dëgg la. lenn li ma xam mënu ma wax lépp war ci tënk rek war naa ko mën a seede. lenn li ma xam mënta wax lépp waaye ci tënk rek mën na seede kaddu yii mu fi jibal. nee nañ ma keroog juróomi million la génnee ci kanamu Cheikh Tidiane jox ko shérif bi ne ñaan leen bàyyi maamun génn. ne keroog juróomi million. la joxe ca Faas. la joxe ca Faas. moom Mansour mii. moom Mansour mii na ñaan leen. ba fa nekkoon warlu pour ma génn ci xat-xat yi ma nekk. ne na ko Chérif ba fa nekkoon warlul ngir Baye Mamoun génn ci xat-xat yi mu nekk. yàgg na ma taxaw. yàgg naa taxawu magam ji. loolu du ma ci sori indiwut ñu fi. ne loolu du ci sori ndax indiwut ñu fi. waaye seede jëf ju baax dafa baax ci bés bu mel nii. waaye seede jëf ju baax dafa baax ci bés bu mel nii. kon kii tëdd. kon jëmm ji tëdd. ñu ko seedeel ci bëgg baay ak tiijaan ak nekk julit si imam Cheikh danay wax ne bu ñu ne bëgg na baay rek loolu doy na. liñ ko seedeel ci bëgg baay ci nekk gim nekk tijaan ak nekk gim nekk julit Cheikh imam Cheikh day faral di wax ne diw buñ ne bëgg rek. lépp matale naa. kii conduire jeunesse bi ki nga xam ne dafay conduire jeunesse bi di leen guider muy sëriñ bi. ki nga xam ne dafay conduire jeunesse bi di leen guider muy sëriñ bi. bii toog di xalifa bi. bii toog di xalifa bi. sëñ bi sa néew ngi nii. sëñ bi sa néew ngi nii sa doom a ngi nii. ñaanal ko yàlla. ñaanal ko yàlla. dolli ci li nga doon ñaanal. dolli ci li nga ko doon ñaanal. warlul ko yàlla fi mu jëm. warlul ko yàlla dolli ci li nga ko doon warlul fa mu jëm. loolu laa waxoon danaa ko wax ci ay kaddu. loolu la waxoon ne dana ko wax ci ay kaddu. su loolu paasee. su loolu paase képp ku taxaw ci moom gërëm naa la. képp ku taxaw ci moom. Baye Mamoune ne gërëm na la. jiital sama yaay. bi jiital ci ngërmandeem li. waajuram wu jigéen. jaamu baay taalibe baay. di jaami baay. di taalibe baay. Fatima Hassan Deme. Fatima Hassan Deme. gërëm na ko wax na ma ne ma gërëm naa Cheikh Mansour. ne gërëm na ko. te wax na ko ne Cheikh Mansour mii man mii di yaayam gërëm naa ko. sëriñ Mamoun wax na ma ne ma gërëm naa Mansour. sëriñ Mamoun wax na ko ne gërëm naa Mansour. bu loolu paasee. bu loolu paasee. jabaram yi itam taxawu nañ ko ñoom ñëpp. soxnaam yi itam mu ba ca kër ga taxawu nañ ko ñoom ñëpp. maa ngi leen di gërëm. Baye Mamoun ne mu ngi leen di gërëm. fi may jeexalee nag. ne fi muy jeexalee nag. mooy ne. mooy ne. kii. kii. niti aljana la. niti aljana la. taalibe baay la. taalibe baay la. lim mujjee wax. lim mujjee wax. mooy laa ilaha illallah. mooy laa ilaha illallah. maam baaba mi nga xam ne daanaka du ñuy tàggoo bëkk néegam. maam baaba mi nga xam ne daanaka du ñuy tàggoo bëkk néegam. wax na ma ne. wax na ko ne. bi mu jullee fajar. bi mu jullee fajar. zaawiya ba ca Dakar. ca zaawiya ba ca Dakar. ci sujjóot bu mujj bi mënatul a jug. ci sujjóot bu mujj mënatu la jóg. mënatu dara. mënatu dara. gannaaw gi la jéem. gannaaw gi la jéem. ñu dimbale ko dugal ko ci néeg bi. ñu dimbale ko dugal ko ci néeg bi. jotaay yi ci topp bu ko toppee dafay gudd. jotaay yi ci topp bu ko toppee dafay gudd. waaye wax na ko foofu moom maam baaba ne ko. waaye wax na ko foofu moom maam baaba ne ko. maam baaba man damay dem. maam baaba man damay dem. nuyul ma sama yaay. nuyul ma sama yaay. ool ma ko. ooyal ma ko. ne ko mu baal ma. ne ko mu baal ma. na ma ñaanal yàlla. te na ma ñaanal yàlla. docteur bi wax na ma ne ma. docteur bi nga xam ne mooy Sarr. docteur bi di docteur Sarr yoroon traitement yam wax na ko ne ko. Mansour ci waxam yi mujj daf ko poñe bi mu crisé. Mansour ci waxam yu mujj daf ko poñe bi mu crisé. ba jógaat crise cardiaque xol moo ko dal. bi mu ba jógaat. daf ko poñe ndax crise cardiaque xol moo ko dal damay dee yuuxu ne ko man damay dee man damay dee yuuxu bul wax loolu mu ne ko bàyyi ngi nii taxaw jël si ma mu ne bul wax loolu mu ne ko bàyyi ngi nii taxaw jël si ma xale yi nañ jàng xale yi nañ jàng fekk fan yi xale yi yëpp foofu di leen si kar loo ñuy si kar dañ door a jàng ci nañ jàng fekk fan yooyu yëpp dafa yóbbu xale yi ci zaawiya ba ci zaawiya ba di leen di si kar loo ñuy si kar mu ne xale yi nañ jàng mu ne ko baal ma àq mu ne ko baal ma àq. waxal baay maamun mu baal ma àq. waxal baay maamun mu baal ma àq. waxal sama jabar yi ñu baal ma waxal sama yaay waxal ñëpp nañ ma baal. waxal sama jabar yi ñu baal ma ñoog sama yaay ñoom ñëpp nañ ma baal. taalibe baay laa. taalibe baay laa. laa ilaha illallah. dal di ne laa ilaha illallah. docteur bi ne Muhammadu Rasulullah foofu la dogee. docteur bi tontu ko ne ko Muhammadu Rasulullah foofu la dogee. bi ma nekkee Fuuta. baay maamun ne bi mu nekkee Fuuta. bés bi mu gaañu. bés bi mu ci benn waxtu bu tuuti yàlla wan na ma ko moom Mansour foofu lay ci benn waxtu bu tuuti yàlla wan na ko ko moom Mansour moom mii di Baye Mamoun Khady Faty jàkkaarloo jumaa ji foofu la taxaw fii fii ci kër Seyda Khady Faty ci teen bi jàkkaarloo jumaa ji foofu la taxaw ci weti këram ne fii bërëb bi joxoñ ne bërëb bii dal di joxoñ junjit fenn dafa joxoñ baaraam bi rek mu jëm kuru kër gi ba ba jublu penku ba. fii képp ku ñu fi suul taxe nga taxe saada abadiya. Ah, na fii képp ku ñu fi suul taxe nga taxe saada abadiya. mu ne ko macha allah. mu ne ko macha allah. loolu dëgg la. loolu dëgg la. mu fàddu ma tuuti. mu fàdd ko tuuti. daal di ñëwaat. daal di ñëwaat. bi mu ñëwaatee. bi mu ñëwaatee. mu ma suul nañ ko foofu ba pare. mu ne ko suul nañ ko foofu ba pare. mu ne ko ah kooku de am na sens mu ne ko kay am na sens. kooku texe na mu ne ko kooku de am na sens mu ne ko ah kooku kay am na sens. texe na ay waxtu laa ci teg docteur bi ooma. ay waxtu la ci teg docteur bi oo ko. ndeke bés boobu ci la génn àddina. ndeke bés boobu ci la génn àddina. lu jiitu loolu nag. lu jiitu loolu nag. Mawlana Cheikh Ibrahima Niass laa gis. Mawlana Cheikh Ibrahima Niass. radiyallahu anhu la gis. li tax ma koy nettali yonent bi moo santaane ne bichaara nañ koy wax. li tax ma koy nettali yonent bi moo santaane ne bichaara nañ koy wax. bichaara mbégte. mbégte nañ koy nettali. comme ci jalaal lañ nekk comme ci jalaal lañ nekk. rafet na ma wax ko loolu rek laa ci jublu. rafet na mu nettali ko loolu rek la ci jublu. dafa fekk mu génn ci xalwa ñetti fan foofu ci Fuuta. dafa fekk mu génn ci xalwa ci lu tolloo ñetti fan. foofu ci Fuuta ci ñetteeli fan bi ci la ma bàyyi feeñu. ci ñetteeli fan bi ci la ko bàyyi feeñu. taxaw ak jëmmam ju tedd ji. taxaw ak jëmmam ju tedd ji. di ma waxal lan mooy maarifatu billaahi tabaaraka wa taala. di ko waxal lan mooy maarifatu billaahi tabaaraka wa taala. mu ne ma bàyyi. mu ne ko bàyyi. lii dëgg te dëgg. lii dëgg te dëgg. mooy na kaw suuf gii. mooy na kaw suuf gii. dara newu fi lu may yàlla. dara newu fi lu may sëñ Mamoune a ngi toog sama wet di muuñ sëñ Mamoune a ngi toog ci wetam di muuñ bàyyi di ma misaalal bàyyi di ko misaalal wallaay ci kanamam lay waxee wallaay ci kanamam lay waxee lii lii la lii lii la lii lii la naan ko lii lii la lii lii la lii lii la waaye ishaara deyib Cheikh Mansour gi waaye fi mu ishaara deyib Cheikh Mansour gi dafa mujj soppeeku bàyyi dafa mujj soppeeku bàyyi soxna soo suñuy wax Aysatu Njaay soxna soo suñuy wax Aysatu Njaay doon soxnaay sëriñ Ousmane Ndiaye. doon soxnaay sëriñ Ousmane Ndiaye. mujj nekk soxna Thierno Assane Deme. mujj nekk soxna Thierno Assane Deme. jur sama yaay. jur yaayam. moom la bàyyi mujj soppeeku. moom la bàyyi mujj soppeeku. daal dina ma sukuraat. dal dina ko sukuraat. waxee ma ci Cheikh Mansour. waxee ko ci Cheikh Mansour. inna lillahi. inna lillahi. wa inna ilayhi raaji'uun. wa inna ilayhi wa rahmatulah. nañu wax inna lillahi yoon. ñu ngi tàggeeg ñu ngi tàggoog doom boo xam ne doomu dëkk bi la. nañu ngi tàggoog doom joo xam ne doomi dëkk bi la. ni ñu yaakaar doomi dëkk meloo ko ni ñu yaakaar doomi dëkk bi meloo ko yëpp. melokaana wi ñu yaakaar doomi dëkk bi melowoo ko yëpp. maga ma ngi nii wax na ko ci moom. maga ma ngi nii wax na ko ci moom ñëpp di dégg. te yaakaar na ne am na ñu bëri itam ñu mën a wax loolu. te yaakaar na ne am na ñu bëri itam ñu mën a wax loolu. doomi sëñ Maamun la. doomi sëñ foofu la juddu. foofu la juddu. fekk baayam gëm yàlla. fekk baayam gëm yàlla. mu gëm yàlla. mu gëm yàlla. fekk yaayam gëm yàlla. fekk yaayam gëm yàlla. mu gëm yàlla. mu gëm yàlla. fekk maamam gëm yàlla. fekk maamam gëm yàlla. mu gëm yàlla. mu gëm yàlla. seen gëm yàlla googu. seen gëm yàlla googu. dañ ko soppi liggéey. dañ ko soppi liggéey. liggéey. liggéey. loo xam ne. loo xam ne. dafay saxal nit. dafay saxal nit. ci kaw dëggu. ci kaw dëggu. ne lim wax ni gëm naa yàlla. ne lim wax ne gëm naa yàlla. liñ def yëpp gannaaw loolu. liñ def yëpp gannaaw loolu. dañ koo def rek ngir sàkku jëmmi yàlla. dañ koo def rek ngir sàkku jëmmi yàlla ji. ngir sàkku ngërmande yàlla. ngir sàkku ngërmande yàlla. loolu la fekk ay ay waajuram di def. loolu la fekk ay waajuram di def. loolu la fekk ñim fekk ñëpp. loolu la fekk ñim fekk ñëpp. ñu ànd ak seen waajur. ñu ànd ak seen waajur. ci loolu lañ nekkoon. ci loolu lañ nekkoon. li Baye Mamoun wax. lii Baye Mamoun wax sànq. lu bëri kenn mënatu cee yokk dara. lu bëri kenn mënatu cee yokk dara. xanaa ñuy ñaan yàlla rek. xanaa ñuy ñaan yàlla rek. loolu mu yaakaar yaakaaroon ba di ko def ci dundam ngir yàlla. loolu mu yaakaaroon ba di ko def ci dundam. ngir yàlla yal na ko yàlla yal na ko yàlla teeroo. yal na ko ko yàlla teeroo. rabbi ci ngërmandeem. ci ngërmandeem. ci yërmandeem. ci yërmandeem. ci mbaaxam. ci mbaaxam. yal na ko yàlla def. yal na ko yàlla def. muy sangu. bokk ci sang ya nga xam ne. bokk ci sang ya nga xam ne. ñoom la yàlla di teeroo aljana. ñoom la yàlla di teeroo aljana. ñoom la yàlla di barkeele ñoom la yàlla di barkeele seen jëf aljana. ñoom la yàlla di barkeele seen jëf aljana. ñoom la yàlla di booleeg. yàlla di booleeg. ñi nga xam ne tànn na leen ñëpp. ñi nga xam ne tànn na leen ñëpp. ne samay tànneef la. ne samay tànneef lañu. <clears throat> muy yonent yeeg wàlliw yi. muy yonent yeeg wàlliw yi. ak nit ñu kawe ñu baax ñi. ak nit ñu kawe ñu baax ñi. yal na ko yàlla wanaleeg ñooña. yal na ko yàlla wanaleeg ñooña yaa rabbi. jaay rasulillah. bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. yal na ko yàlla uutu gannaawam ci njabootam. yal na ko yàlla uutu gannaawam ci njabootam. yal na yàlla saxal liggéeyam. yal na yàlla saxal liggéeyam yaa rabbi. liggéey baayam. liggéey baayam. liggéey liggéey maamam. ci njabootam. ci njabootam. ba nga xam ne. ba nga xam ne. buñ mënta def ni ñoom itam. buñ mënta def ni ñoom itam. danañ def loo xam ne. danañ def loo xam ne. danañ fàttaliku ne. danañ fàttaliku ne. Euh, tànk bii ci tànk bële la bàyyeekoo. tànk bii ci tànk bële la bàyyeekoo. yal na def loolu. na yàlla def loolu yaa rabbi. léegi guddi na. fi toll nii guddi na. seede yi doy na. seede yi doy na. seede maamun bi rek doy Baye maamun bi rek doy na. seede Baye maamun bi rek doyoon na. waaye teewaay bii teew teew teew teewaay bi yëpp seede rek la nit ku baax la ñuy tàggoon nii. waaye teewaay bii ngeen gis yëpp seede la di wane ne nit ku baax la ñuy tàggoot nii. wala ay nit ñu baax itam ndax am na keneen ku ci ndax am na keneen ku ci am. wala ay nit ñu baax itam ndax am na keneen ku ko ñaareel. ñu mel noonu ko ànd ak ñoom. ndax ñett lañ. ndax ñi ñu ñu ñu mel noonu. ndax ñu mel noonu. kuy tàggoog ñoom. kuy tàggoog ñoom. yonent nee na. yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam. am na ay jaam yoo xam ne. am na ay jaam yoo xam ne. ku fekkee seen dés bi ku fekkee seen bés bi yàlla jéggal na la. yàlla jéggal na la. yàlla jéggal na la ndax ñoom. yàlla jéggal na la ndax ñoom. wala yàlla jéggal na la ndax ilimaan. wala yàlla jéggal na la ndax ilimaan. ndax yàlla jéggal na la. wala yàlla jéggal na la. ci ñi rax ci mbooloo mi tax xamuñ leen. wala ay nit yàlla du dëgg yu dëggu. te ñuy ay nit yàlla yu dëggu. te loolu yëpp ku ne xam na ne yàlla dajaleel nañu ko. te loolu yëpp ku ne xam na ne yàlla dajaleel nañu ko ci mbooloo mi. ci ak ci jotaay bii ci jotaay bi. kon nag yàlla nañu may jàmm. kon na ñu yàlla may jàmm yaa rabbi. yàlla nañu yàlla dolli. yàlla yàlla dolli yaa rabbi. yàlla nañu yàlla yëkkati. yàlla nañu yàlla yëkkati. yàlla yàlla dëgëral. yàlla nañu yàlla dëgëral. yàlla nañu yal nañu yàlla dëgëral. yal nañu yàlla dëgëral. yal nañu yàlla dëgëral. allahumma salli ala sayyidina wa sallim. jërëjëf. Sayyidul Fayda moom lañ tànn maam Cheikh Tidiane Seydi Ali Cissé moom moo war a euh, jiite euh, comme ni ko aadoo. moom fusal na fusal na fusal na fusal encore tëralal fii tëralal muy ñu teewlu julli gi as as ku mën jullee ji nga di ko wax gannaaw kabar gu ne mu ko mënu de allahumma yafir lahum warhamhum lahum dafa seen na jullee